tests réalisés, 15 sont revenus de 15 cas contacts par nos services. 14 patients hospitalisés ont été déclarés guéris ce jour. Ils sortiront de l'hospitalisation tout à l'heure. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. À ce jour, 265 cas ont été déclarés positifs au Sénégal. dont 137 guéris, 2 décédés, 1 évacué. Par conséquent, nous avons 125 patients sous traitement dans nos, dans nos hôpitaux. Le ministère la Santé et de l'Action sociale exhorte au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective ma liral leen situation wu tey bi tey àjjuma fukki fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat test yi ñu def ci téeméer ak juróom-ñeent fukk ak fukk ak juróom ñoo ñëw positif bon ñoo am jàngoro bi fukk ak juróom yooyu fukk juróom la yoo xamante ne ay cas contact la yu doon suivre ci suñuy service ñu yëgal tam ne fukk ak ñeent patient ñi xamante ne ñu ngi woon ci hôpitaux yi ñu leen di faj tey wér nañ bésu tey bi nañ leen génn hôpital ci bés bi ministère la santé de l'action sociale ñu ngi yëgal ne patients yi ñuy faj actuellement ñu ngi yëg tan ci seen yaram ñuy xayma ba mu commencé ba léegi ñaar téeméer ak juróom benn fukk ak juróomi cas lañu déclare fii ci Sénégal si cas yooyu téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar wér nañ ci ñaar génn nañ àdduna kenn évacué nañ ko bon ndëkk tey téeméer ak ñaar fukk ak juróomi patient ñoo nekk ci suñu hôpitaux yi ñu leen di faj ministère la santé de l'action sociale mi ngi demander population yi ñu respecter bu baax digal yi leen di jox pour que xeex bi ñuy xeex Covid 19 ñu mën ko gagner nu mu gën a gaawe avant de terminer je vais effectivement introduire notre collègue monsieur le ministre Samba Sy ministre du travail du dialogue social et des relations avec les institutions pour une communication monsieur le ministre vous avez la parole.